mbokk yi jërë ngeen jëf seen ànd ak télévision Futur Média ñu am ak yéen ci xibaaru marax yi li ci gën a fës nekk projet de loi amnistie bi ñuy voté àllarba gi ca assemblée nationale dinañ ci dikk ci pàcc bu yaatu ci xibaar yi gis-gis yi ni ko ni mu waroo ci njaboot yi ak ci woy politique yi euh, dinañ leen demal euh, ca Kër Massar reportage waaye it Médina fii ak ci njaboot yeeg woy politique yi niñ leen ko waxee liberté provisoire maître Moussa Diop gannaaw tuuma ya mu yëkki woon euh, ci ci tuumay jama ak euh, ay yu yuñ ci joxe woon euh, féexal nañ ko euh, avocat wam maître Moussa moo ko siiwal yëkkati gi ñu yëkkati it cité Kandar ca Ouest Foire ak coow la ca tab bi dinañ ci dikk ci xibaar yi ci ni mu gën a gaawee neskis ñu yaatal. Sénégalais ñu seen diggante ak seen niñ leen ko waxee ci bopp xibaar yi mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar projet de loi amnistie ba euh, mu nga ca assemblée nationale jàll na commission ñaar fukk ak juróom ña newoon ca commission ba fukk ak juróom benn yi voté nañ ko ñett yi dañoo maandu néewuñu waaw neewu ñu déet am juróom benn ci ñoom euh, ñoom euh, ñett ñett ñoo ci ñoo bañ juróom benn yi dañ cee maandu neewuñu waaw neewuñu déet euh, dinañ ci dikk su yembee ci nu mu gën a yaatoog Aminata Mbaare Sow mi teewee woon euh, commission googu ca assemblée nationale ak gis-gis yu waroo ni ki euh, waa opposition société civile liñ ci wax ba léegi ci wàllu xibaar googu ñeel amnistie bi maanaam faase yi fi amoon ci wàllu manifester ñaawteef ak euh, def-def euh, ci diggante février deux mille euh, mars février février deux mille vingt et lañ ñu wax ci loi bi ba deux mille vingt quatre bi ñu nekk am ñu ne collectif bu juddu la collectif non à l'amnistie lay wuyoo ñu jàpp ni Sayer Mangane moom mooy yor seen kàddu ñu teew lu laaj ak tontu gi ndax digganteem ak Habib Faye lu waral ñoom ñu bañ amnistie bi. kon tey loolu mënuñoo seetaan bu dee ne ñun nous sommes des citoyens et dignes de ce nom si nous sommes des patriotes dignes de ce nom mënuñoo seetaan loolu donc ci logique boobu lañ nekk ne nañ taxaw kon loolu bu ñu xoolee ba si biir xamul lu muy niru li si njëkk mooy c'est un manque de respect notoire à l'endroit de l'appareil judiciaire du Sénégal la justice ndaxte ci biir population bi nan nga ci mën a seppee ab catégorie rek na leen yéen daal mbaa yàlla na yàllaal nañ leen loo leen def kenn du leen ci bind bàkkaar lu leen neex nga def donc ñun loolu moo li heurté sénégalais yi ci loolu moo ñu seetu ñu seen diggante ak seen conscience seetuñu seen diggante ak seen borom ba voté cette la na ñu xam ne buñ ko voté tamit l'histoire va retenir leur nom les li leneen li ci toppaat mooy ne bu dee jàll na ñoom seetaan nañ defuñu seen devoir bi ñu war a def en tant que parlementaire représentant du peuple bu loi bi jàllee foofu ba ñu valider ko ñun li ñuy def mooy fexe ba keneen Macky président Macky Sall moom ñëpp xam nañ ne jeexal na ki ko war a remplacer ñi ko war a remplacer mu ngi ñu ngi yeewoo fii Sénégal ñooñu la ñuy dem fexe wax ak ñoom ñu dig Sénégalais yi nekk en témoin suñu diggante ak ñoom. ni mu leen ko doon waxee ci bopp xibaar yi Aminata Mbaare Sow yemb na ca assemblée nationale commission ba ak amnistie bi ñu teewlu. de loi bi jëm ci amnistie te nguutu réew mi daal di koy jébbal député yi ngir ñu càmbar ko daal di nañ koy examiner tey jile ci talaata bi ci commission technique projet d'amnistie boobu nag bu buñ ko voté ci assemblée nationale day effacer jëf yi nga xam ni ak yenn ñaaw tef yi nga xam ni ay député yoo xam ni dañu fare ci ex Pastef loolee nag andi jeexi jaaxa ci ñenn ñi nga xam ni ñooy ay observateur ci wàllu espace politique ndaxte ñoom dañu jàpp tey tey position député yu ex Pastef yooyu le xaw naa andi ñaaw xel ndaxte ñooñu lee dañoo faraloon di joxe seen position bu leer ci benn seen ñàkk ànd tey ji nag loi d'amnistie bi nga xam ni ñu ngi leen ko soumettre woon ci commission technique ngir ñu joxe ci seen kàddu ñoom leerlu wuñu bu baax a baax ñenn ñi di wax ne ndaxam projet loi d'amnistie boobule dafa am ñi bokk ci Pastef te am ci intérêt ñu voté ko foofu foofule ci assemblée national lum ci mën a doon mbir mi dina leer àllarba gi ndaxte foofule ci assemblée nationale woo nañu député ñu jukki ci wane ci joxe ci seen xalaat voté wala déet projet de loi boobule. Aminata Mbaare Sow ba léegi ci wàllu euh, loi d'amnistie boobu demal nañ leen yëmbal departement Kër Massar tàllal euh, micro askan wa fay yeewoo gis-gis bi waroo ñenn ñi ne ànd nañ ci ñenn ñi ne déedéet. ku pour man da xamul lu ci kaso comprendre nga kaso dafa metti te boole kaak am na ñu def am na ñu deful man daal su ma amoon lu ma gënal ñu appliqué ko ñëpp delluwaat seen i kër. bu fekkente ni dégg nga maam waxtu wu ñu tooñee nit ki ba pare wëlbatiku xi xi xi bàyyi la te nit ñi du xam lan moo tax ñu amnistie la loolu dana ñu jaaxal ñun moo tax ànduma ci man. man loi d'amnistie bi d'accordu ma ci. diggante deux mille vingt et ba ba deux mille vingt quatre dafa bari ci injustice bu ñu jógee tëb tëb ñu ne dañuy amnistie pour lan ko mën a génn ñu génnee jomaay pour mu bokk ci présidentielle mais li fi xew boo xoolee ñi nga xam ne dee dee nañ deele nañ ah te benn enquête génnewuñu si ñii perte ah ñu nar a amnistie loolu yëpp fee yooyu yëpp ñu nar a euh, noonu mais ñi nga xam ne seen parents yi dañoo dee euh, seen seen frères yi seen sœurs yi dee ci li nga xam ne moom mooy euh, kiiw politique bi passé nii ñooñu après lan lañ leen di defaral. damaa jàpp ne ñu ñuy rey doomu jàmbur yi ñu def crime yoo xam dafa extraordinaire comme ñu wax ne ñoo sànni ay kii si bus tata boobu. ñooñu ñu leen waruñu leen amnistie quoi su nekkee loolu moo tax a jóg waruñu leen amnistie parce que damaa jàpp ne crime moom ku def crime da ngaa war a fay fay rek waaye est ce que ñoom loolu moo leen concerné waaye su nekkee suñu doomee suñu rakk suñu doom ndey nga xam ne ñu si kaso bi ndax dañoon manifester dama lay jàpp dañoo war a libéré te jarul ñu leen di amnistie. Médina tamit euh, am nañ seen doom ñu ci loru ba tax gis-gis yi waroon na foofu euh, kenn ci euh, njaboot yi. Uh, bañ ñoom it ne d'accorduñ ci niki it uh, meeru gox ba Bamba Fall lay wuyoo ñu ànd ak moom ci reportage Cheikh Diop ci leeral. Tidiane lii lay wuyoo moom mi lee moom mooy wajur bu góor bu Dudu Fall nga xam ne dañ koo fàtt ci fitna bi nga xam ne nag moom moo fi xewoon ci weeru mars moom mi lee saa su ne certificat bu dese wu doomam bi nag mi ngi ak moom muy fàttaliku ba tey lu ni mel lu ñeel loi d'amnistie bi nag nee na d'accord ci benn yoon. si boobu liñ ko dul xeer. ci manifestation yi ndax ñoom dañu nekk si buntu mairie ay gars jóge la ñëw ne dañuy attaqué maire bi dañoo lakk maire bi gosi aussi jóg ne leen non maire bi kenn du ko lakk ndax suñu teraanga fii la nekk si biir loolu ñu jàppante si moom ñu dóor ko xeer si bopp bi nit ki loo baax baax doo may ku loo baax baax doo baal ku doo doo baal ku la ku la man de personnellement man mi nga xam ne maa ko juru si farte yàlla as sunna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu nekkoon sama taw man de bàlewu ma projet de loi d'amnistie générale ñi teewal askan wi ci pencum ndayu réew ma daan ci sëgg maire bu Médina jàpp ne lu ni mel warul benn yoon ñu daal di koy voté man ñëpp xam nañ ni Macky Sall laa àndal na bu tuuma ci te ku ko déggal laa ku ku ko bëgg laa te ñëpp xam nañ ni tamit Amadou Ba mooy sama daal lépp lu Macky di def dinaa ko ci jàppale sauf amnistie bi ndax amnistie bi moom mënuma ci jàppale parce que ki ma ñàkk moo soo moo ci man ñu denc ko noonu rek bëgg nii baal nañu ñëpp déedéet loolu bu naree continuer damay ragal ay règlement de compte am ndax ñit ñi xam nañ ñi ko def te ñu ko def bu ñu moytu bu ñu génnee ci mbedd mi ay mbokkam ak xaritam fay bu yoon amul parce que bu bu bu yoon amul rek fayu am moo tax man d'accorduma ci amnistie bi. ñi nga xam ne ñoom ñoo ci ñàkk seen ay ñooñ boobaak léegi rafetlu ñu benn yoon li nga xam ne moom moo di doxalinuk njiit bu réew bu Sénégal. amoon na ñaari soxna ak ñaari bant mais ba léegi daal. état bi waxul lu lu jëm si ñooñu. mais fu ne fëgg naa fa ci état bi pour ñu sax ab kër bu ñu dimbalee njabootam mais ñu may tan xam lu dem naa seeti directeur des domaines wax naa ko ko mais ba tey wutalu ma solution dem naa ci Abdoulaye Seydou Sow ba jox ko kayit yi ba tey wutalu ma solution kon tey location famille sax maa koy fay ak yenn charge yi ba pare tur nañu baal nañ ko mais baal nañ ko léegi kan moo koy yore njabootam ku koy toppatoo papaam ak yaayam. mais loolu dafa métti. juróom benn fukk ci ay doomi aadama daal di ñàkk seen bakken ci pëccëxoo wi nga xam ne nag ah, moom lañu fi nemmeeku woon ci weeruk mars atum 2021 jàpp février atum 2024 mu doon lu doy waar ñi nga xam ne ba tey ah, ñoom la si seen njaboot daal di faatu jàpp ne ne gouvernement bu Sénégal mi ngi jëmmal lu métti ci seen xol tey itam dina tax Samba Boy yi lépp lu ñu leen waroon a daan ñu daal di leen koy baal Cheikh Diop dañuy des ak euh, maire Médina Bamba Fall àdduna ci datu élection bi ñu teewlu. sax le 2 juin mun dama jàpp ni sax date bi ñu wax sax le 2 juin mënu nekk ndaxte tey li ñuy bañ a wax mooy dafa am ci ci ci code électoral bi bis boo mënti jàpp ka cee am 18 daa war a voter kon tey bu ñu jàppee bés. war nañu may ñaar ba ñetti weer ndax loolu parce que ñëpp xam nañ di nga ubbi liste électorale yi pour xale yooyu bindu dina def un dina mois presque après mu am phase contentieuse yi bu ci paree day am dañuy ubbiwaat tamit pour ñu retire carte yi yooyu yëpp boo xoolee dina dina romb ñaari weer te ñu ni la diggante décret bi président di xaatim pour war corps électoral bi ak jour élection bi 80 jour war na cee dox. ba pare ngay dégg tey ñoom ñu naan ay màggal ki ay gàmmoog ay weeru koor tabaski ak nawet bii ñëw man ragal naa ne élection bi bu dee bëgg nañu mu jaar yoon ragal naa ne bu demul décembre février jëm ba léegi ci wàllu ñi ñu féexal euh, bokk na ci maître Moussa Diop euh, gannaaw fukki fan ak juróom ci weeru décembre la ko caabi féete woon ginnaaw mu doon candidat présidentiel euh, donte jàllul ci parrainage baak ñoomin seen ci dossier ya liberté provisoire bu ànd contrôle judiciaire la am nekkoon na fi jamono ci fàttali njiitu Dakar dem dikk ñi ngi ko téye woon diffusion de fausses nouvelle diffamation contrefaçon des faux de l'État Touba ak euh, faux usage de faux gannaaw laaj ak tontu gu dox digganteem ak ay taskati xibaar mu siiwaloon ni dañoo joxe ay permis d'exploration mine de diamant fii ci Sénégal ba léegi ci wàllu xibaar ñu dem ci procès bi waroon am euh, diggante maraîcher Lendeng ak euh, këru àttekaay yi fukki fan ak ñaar ci weeru mars bi lañ ko mujj dàq ndax ñi doon clamé ñoom ñoo ñëwul kenn ci ki yor kàddu Euh, ñi nga xam ni ñoom ñooy euh, ñi nekk ci kaso bi jamono ji ñu nekk juróom-ñeent ci ñoom ay maraîchers euh, ki yor seen kaddu Pape konaate lay wuyoo laaj ak tontu dox na digganteem ak Dissa Preira Amadou Ba ci caméra bi. population Colobane Guy Murit mooy ñi nekk ak maraîchers yi ñoo ñëw au moins ñoom ñoo ñëw pour assister audience bi nga xam ne ni moom la ñu jàppoon si suñuy ñooñ maanaam tuumal leen ni ni dañ doon yàq liggéeyu jàmbur ñooñu benn lenn lañ leen mën a sikkee mooy li ñuy def mooy jéem a défendre seeni tool alors ci tuumal boobu nit ki ñëw na ñu ne tey kat audience bi la woon ci kaw audience bi nag juge bi moo décidé ni ni dañuy delluwaat ba semaine bii di ñëw demandé nañ kon na bàyyi ñooñi ñu dem tëddi ba le 12 ñu ñëwaat mais procureur dafa opposé wu ci loolu te ñu ko koy nangul waaw li tax mu renvoyé ko mooy ñi nga xam ne ni ñoo tuumal ni ni ñu indi fii ñooñu ñoo ñëwul. ñi ngi ci weeru mars bi ñu jagleel jigéen ñi ba tax collectif des féministes du Sénégal euh, dinañu amal euh, caravane mauve euh, moom lañ koy mandargaale ba fukki fan ci weeru mars bi dinañu dem Dakar Thiès Louga ak Ndar ci seen yëngu-yëngu yooyu aadama Pouy mi coordonné collectif bi laaj ak tontu dox digganteem ak Amadou Ba ñu teewlu. xamante ne seen euh, seen yoon nekk na si li nga xamante ne mooy lépp lu jëm si wàllum jigéen ñu dajale leen am ak ñoom ay waxtaan yoo xamante ne dinañ leen wan juridiquement lii ak lii ak lii moo am si avancé yi nga xamante ne moom lañ doon jéem a ut si euh, droit des femmes xamal leen ni tey jii nii bu ñuy dund telle ou situation nga xamante ne euh, daf leen di gàllankoor sur le plan social mën na nekk si seen sëy daf leen di gàllankoor sur le plan professionnel ci seen liggéey daf leen di gàllankoor sax si li nga xamante ne mooy sécurité bu ñu nekkee ci mbedd bi ñu waxtaan ak ñoom ñaax leen xamal leen ne ñun collectif des féministes du Sénégal dañoo taxaw ànd ak ñoom. cité Kandar euh, dafa yembagul dinañ leen fa yóbbu niñ leen ko waxee ci boppu xibaar yeeg euh, déguerpissement bi euh, ak mairie bu yoof bi yor kilifteef ba bu yembee rek Abdoulaye Diop mi ñu fa demal dinañ leen ko àggee. Euh, ba léegi ci wàllu xibaar CNRA siiwal na communiqué ni mu koy faral di defee saa suñu dëgmalee koor gi di fàttali sketch yeeg série yi daw ci télé bi ñu wàccoog la nga xam ni moom mooy euh, wormay koor gi waaye it lépp loo xam ni dafa mën a salfaañe nekkinu askan wi stabilité nationale ak cohésion sociale ak aussi di ñaawal diine nañ ko moytu tegee ko fële Euh, CNRA siiwal euh, xët wi jëmale kon ci média yëpp ba léegi ci wàllu diine googoog euh, sang bu tedd bi ñu xaatim téere goo xam ni Seydina Aliou Bari moom moo ko ko jagleel ba tax indi na ci ay leeral te ci wolof la ko xaatim moom ana lu ko waral laaj tontu dox na digganteem ak Modou Diop ñu teewlu. ne moom la ñu tuddee ngeen ji taarix ak xadis téere bi nag mu ngi toll ci 262 xët maanaam ñaari téeméer xët yi tegal juróom-benn fukk ak ñaar téere bi di wax ci dund yonent bi alayhi salaatu wasalaam jaar-jaaram ak i njàngaleem ku ne xam na ni fii ci réew mi ñu bëgg yonent bi bëri nañ lool waaye nañ ko xam nañ nañ ko war a xamee xam gu wér lu jafe la pour nga daje ak nit ñi ñu fekk xam-xam boobu yàlla dogal it téere yi nga xam ne ñoom ñooy wax ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam yi ci ëpp ci làkku arab la làkk woo xam ne xëy na ñu ko jekku ci réew mi bëriwuñu ñun nag suñu boroom dogal ñu gis ni pour yombal xam-xam yàq xam-xam jëlee ko ci làkk indi ko ci làkk moo ñu motivé bañ bind téere bi ci biographie yonente bi alayhi salaatu di ngeen ji mbindeef taarix ak hadis lépp loo xam ne lu jullit bi war a xam ci yonente bi la mu koy jëriñ fii ak fañ jëm dëxañ nañ ko ci biir téere bi di ay jaar-jaaram ca Màkka ca Medina ca amoon njabootam nam doon jëflante ak saxaaba yi lettre yam daan bind buur yi lépp tënk nañ ko ci téere bi te def ko ci làkk bi nga xam ne mooy suñu làkkub réew di làkk wolof di làkk woo xam ne dawal ci maanaam liir ci yomb na lool ndax ku ne xam ne ni léeg-léeg gàllankoor bi nekk suñu diggante ñun ak xam-xam mooy ñàkk a jekku aw làkk kon nag buñ ko indee ci làkk woo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk ku ci nekk di nga ko mën a dawal dina yombal dund yent bi ñu ngi sukkandiku ci ay téere yu wér pour bind ko lu ci mel ni suñu delluwaay bu njëkk mooy alquranul karim mooy suñu source bu njëkk mooy masdar bu jiitu xam nga suñu réew fii nu xam-xam di doxe boo gisee ñu taamu làkk bi bind bind ci làkk bi mooy tey képp koo xam ne français rek nga jàng di mën a liir téere bi koo xam ne arabe it nga jàng di nga mën a liir téere bi koo xam ne it jàngul français jàngul arabe dina mën liir téere bi lan moo ko waral téere bi wolofal la ñi loru woon ci nguuru Hissène euh, Habré tàmbale nañ di leen euh, dàmp 10 euh, milliards fukki milliards ci suñuy koppar buñ koy xayma ci xaalisu tugal 15 millions d'euros ak lu teg moom lañ leen jébbal ci xaaj gu njëkk gi ci ndàmpaay di fàttali ne 82 ba 90 moom moo jiite woon Tchad Euh, te it dañ ko mujjoon euh, daan prison à vie fii ci Sénégal pour crime contre l'humanité ci euh, atum 2016 ba 2021 bi mu faatoo ci leeral ci koppar yooyu ñu jébbal ñi nga xam ne dañ ci loru clamé ko woon Abdourahmane Diallo ñu ngi leen tàmbale fay le 23 février ginnaaw ab réunion bi am diggante njiitu réew mi Mohamed Idriss Déby no ak ñetti association yi nga xam ne ñoom ñooy xeexal ñu ñu fitnaal ñoom ñi nga xam ne nag ay victimes lañu ñu ngi toll ak fukki junni ak juróom-ñetti téeméer ñu boole ci ñu ñi nga xam ni ñu ngi yoon ci kaso yi ak njaboot ñi nga xam ni dañu ñàkk seeni bàkkan kenn ku nekk ci ñoom nag war a jot lu toll ak 925 000 francs CFA loolu mu doon lu néew lool bu ñu sukkandikoo ci tribunal Sénégal ak tribunal Tchad ci atum 2015 quinze li mu waxoon ni loolu lañ leen war a jox comme ndàmpaay cour d'appel bu chambre africaine extraordinaire bu Dakar ginnaaw bi mu tegee daan Hissène Habré ci avril 2017 dafa waxoon ni nañu jox ñi nga xam ni ñoom la fitnaaloon lu toll ak juróom-ñett fukk ak ñaari milliards mu def ko ay pàcc ñaar fukki millions képp ki nga xam ne dañ la siif ak xeet gi ni mel fukk ak juróom millions de francs CFA ñi nga xam ni dañ leen doon dóor dóor yi metti wala ñu tëj leen te teguñu ko fenn fukki mille millions de francs CFA ci njaboot ñi nga xam ni dañu ñàkk seeni bakkan ci xam ni amoon na ca cour criminelle bu naa mi nga xam ni moom it tegoon na daan Hissène Habré le 25 mars 2015 ndàmpaay bi lu toll ak juróom-ñaari fukk ak juróomi milliards lañu waroon joxe présidence Tchad di xamle ni seen ndaje 22 février boobu amoon na ay victimes yi nga xam ni dañu ne li ñu leen di jox noonu taxul ñu daal di fàtte li nga xam ni loolu la leen Hissène abre def ñenn ñu bëri nga xam ni dañuy gëstu xam ne ni njiitu réew mi boo gisee mu jël dogal bii ni mel dafa bëgg nit ñi fàtte mbir yi nga xam ne Union africaine jëloon na ko ci ay dogal li ni mel a tax mu daal di joxe ab liste bi nga xam ni baaxul ngir ñi nga xam ni dañu ànd ak Hissène Habré am lu leen neex maanaam ñu delloo si waat néew bi seeni dëkk ñenn ñi nga xam ne nag ñoom ñoo taxawu ñi Hissène Habré fitnaal ñu ngi ñaawlu mbir moomu ndax jàpp nañ ni war ñoo mën a xalaat li ni mel ci jamono bi nga xam ni ndàmpaay bi nga xam ni moo leen war ak ñoom defuñu ko li ni sax a tax ñu jàpp ni dinañu wéyal seen xeex ba dogal yi nga xam ni tribunaux yi moom la jël ñu mën koo respecté Abdourahmane Diallo ñuy jeexalee tàggat yaram ak euh, beach soccer euh, gaynde yi demoon ci Jeux africains euh, te finaalu coow tàbbi seen digganteeg ministère ba ndax jàpp nañ ni dañ leen war a jox ndàmpaay lu toll ci téeméeri junnu junni waa ministère na demeewul noonu ndax xeetum compétition boobu bokkul ci ñiy dàmp Cheikh Sadibou Diarra jéem na ci indi leeral. am lu rëy loolu moo di gëm-gëmu waa équipe nationale beach soccer bu Sénégal bi jëloon deuxième ci Jeux africains de la plage yi mujj ñu ngi laaj seen prime. waaw ministère moo ñu ameel prime tournoi ANOC Jeux africains yi ñu demoon amel nañu ministère barème bi lenn la médaille d'or un million médaille d'argent cinq cent mille médaille de bronze deux cent cinquante médaille de euh, médaille ñu am de. loolu joueurs yi chaque fois man dañ maa mais day wax si prime man parce que naw ma si woon wax mais joueurs aussi xam naa peut day toll fenn foo xam te dañuy sës cap waxal si prime parce que nit da doo ko may lépp mu jël lépp ba léegi waxuñu si mooy que peut dinañ si def dara mais presque un an waxuñu si mooy dañ naan booy fàtte nañ ko wala peut am na ñoom kerse sa laaj leen ko parce que buñ ko bëggee fay suba suba suba suba dinañ ko fay suba suba suba suba waaw donc ñun ñu ngi leen ci lancer appel nañ génnee koppar yi saa yi nañ génnee koppar yi nii koor mu ngi ñëw nii. ministère des sports bi ñu accusé weddi na loolu ba noppi indi ay leeral. bi ñuy dem jeu de plage. joxoon nañu ku nekk indemnité cinq cent mille francs c'est comme quand les gens vont aux francophonie ou bien aux Jeux africains yooyu c' est des fortes délégations yoo xam ne ça fait presque des délégations de entre cent cent cinquante personnes donc ba tax na l' état dafay ku nekk ay indemnité soit indemnité un million wala indemnité cinq cent mille bi bi ñu ils ont gagné une médaille mais ñoom il faudrait ñu xam ni que les de plage là ça ne fait pas partie de la nomenclature de disciplines qui doivent être primées parce que c'est une nouvelle discipline ba pare bokku ci bokku ci sax ci arrêté bi su fekkee ni ñoom la ñuy réclamer ñoom am nañ jigi nañu génne arrêté boo xam ne ñoom les jeux de plage du Portugal en font partie looy réclamer aussi day fekk ñu ne la lii am nga ci droit boo ci amee droit ñu fay la ko. lii war a jeexal coow li nga xam ni nuru na ni ñàkk communication moo ko indi woon nguur gi yàgg na jox ndàmpaay équipe nationale beach soccer saa yu defee jaloore Cheikh Sadbou Diarra ñu lay gërëm di la sant di leen gërëm di leen sant ci seen euh, teewlu seen ànd ak télévision Futur Média léegi léegi Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Diop dina fi teew àggee leen xibaaru nasaraan yi ñu leen di ñaanal fanaan jàmm.